spécial bi le 24 novembre 2019 diggante King Kong ak Dragon Rouge Dragon Rouge jóge Sali King Kong mo ñu won ginaaw Dragon Rouge door na Dragon Rouge ñu ngi xeex eh King Kong dal na ko King Kong dal na ko King Kong dal na ko. King Kong jàll ko King Kong jàll na ko war na ko ndomba King Kong war na ko ndomba King Kong defal naa kii day King Kong war na ko ndomba laa ilaha illallah Drago Rouge wàcc na Drago Rouge wàcc na laa ilaha illallah Drago Rouge wàcc na Drago Rouge wàcc na oh. amoon wax ko amaat King Kong ndax li nga amoon ni ko amaat. oh ñoom ñaar dañoo taw dafa combat xeex. taawloo meeru ko mujjee King Kong defal ndànk Dragon Rouge dafa dangereux Dragon Rouge nag moom moo yor ngeen mën xonq li waaw mais man daanu laa gis mais gën a jege xale yi te déclaré wul daanu oh xeex bi te nga bëree King Kong xeex bi te nga bëree Dragon Rouge dafa dangereux day bital ñi ku fii na ko war na ko ndomba oh daanu na ku daanu oh ala nañ suuf ñu ngay bëre xale ñu ngay bëre combat jinne waxoo oh, non xale ay jinne lañ waxoo oh, Drago Rouge guerrier la oh Drago Rouge jinne la mais King Kong guerrier ñu ngi bëre lu neex xale ñu ngi bëre lu neex oh combat jinne vraiment combat bi neex na ñaari xale yi ñaari jinne lañu combat bi neex na ñaari jinne lañu boole Dragon Rouge ak King Dragon Rouge King Kong combat bi neex dafa ñam léegi door bi mu neex moo tax bëgg ko bàyyi waaw dafa ko ñam léegi mu neex moo tax bëgg ko bàyyi oh ñu ngay xeex jël na tànk ba jël na tànk ba jël na tànk ba King Kong jël na tànk ba King jël na tànk ba tey mu jeex King Kong jël na tank ba xana bi yoon mu jeex King Kong jël na tank ba rëpp na daw na bi ko na dem na ci saxu ya yar ye bara leen yaa rien bara leen gewel yi rek ngay deg ñoy way ñoy teug ak rapporteur yi la wax oh Ibu Kama daga na lewanto bi Ibu Kama doxal ci ki doxal ci ko yow yaa ëpp doole doxal ci ko ki dootul sa kaw ñam na la ba pare jël sa tank bi waxon na la bo amé loolu nga ñak daanu nga ibu Kama King Kong daanu nga King Kong daanu nga King Kong daanu na King Kong daanu nga King Kong daanu nga King Kong daanu nga